73 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laa dum da ciy gën te bu ñee nee góor tax talaata fukki fan ak benn ci weeru octobre leen dalal jàmm ci xibaar yi bokk na ci ponk yi ci gën a fës mbiruma noddukat ba ñu faat te ñu ne imaamu gox ba laale na ca daañu ci delsiwaat ab soxna su xelam matul la ay defkatu ñaawteef sàkku ca Kër ma Masar danañu ko yaatal ci digg xibaar yi danañu ñëw itam ci mbirum couple sénégalais ga doon maltraité seeni doom ca France yoon teg na leen loxo ba jël ndogal ci ñoom bokk na it ci lu ci gën a fës explosion ga amoon ca SAS ba ay bakkan rot ca ni ñu koy defee saa ne rek mbokk li ngeen taxirlu ba jip ma daal di leen koy yaatalal bàkk ba jib na nuy naa leen bu baax a baax yéen ñi safoo di ñu teewlu ci sunu gaal 24 dal leen jàmm ci xibaar yi ab couple sénégalais le tribunalu France teg loxo di leen toppee maltraitance ak violence ci seen juróomi doomi tollu diggante ñaar jàpp fukki at ak ñaar yëf yaa nga amoon ci njeexantalu atum gi gannaaw cicatrice ñu ne meeku woon ci yarami gune yi ba ñu leen laajee ci lonket ga ca lañu wax la ñu dund kenn ki kaabalu téléphone la ko doon dóoree ka ca gën a mag nag nee na Birame rakkam yi dëggal nañu la mu wax te it nee nañu da doon def kaani gi seen i bët yeeg seen gémmeñ yi ndaw seek borom këram nag semaine bi lañu leen doon atte dañu njëkk a weddi tuuma ya laataa ñu koy dëggal yaay ja nag di baalu a teg nañu yaay ji daanu ko benn at gu mu dul tëdd jëkk ji tam ñu teg ko daanu ko juróom benn weer yu mu dul tëdd ba noppi rek dañu war a fay seen doom yi koppar ay defkatu ñaawteef yu ne woon ci benn 4-4 ñu attaqué village Diagali féete ca commune Barkédji fu fete yëf yaa nga amoon ay boori vingt heures ña nga ngànnaayu woon ba fees dañu door balu feteel jula bii di Ilimane baara ja ndax lamu mu leen bañ a jox kopparam mu ñàkk bakkanam ci saasi ca butigu ilimaan la ñu duggoon ngir jël xaalis ba ñu fa dencoon ginnaaw loolu nag dañu daw laata gendarme yu Linguère di fa aksi benn sénégalais gu am ñaar fukki at juróom-ñaar turam di Moussa Fall la dig teg loxo bésu ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru septembre ca l'aéroport international Blaise di ak si ndakaaru defere nañu ko parquet ba bu nu sukkandikoo ci libération fukki fan ak ñett ci weeru mai ba ndëgg ni interpol ngi wër Moussa Fall jàppoon nañu ko fukki fan ak ñett ci weeru juillet atum 2018 ci ay mbirum trafic de drogue ñu libéré woon ko mu doon nëgandikuwaale rek procès gendarme yu brigade du Kër saar teg nañu loxo ñaari nit dibéer gi weesu di leen toppee viol multiple benn soxna su àndul ak xelam moo leen duut baaxam ni ñoo koy sàkku saay su ne libération mi joxe xibaar wi di xam ne ni rek ci autopont bi la ay nit yu doon romb seetloo ni ndaw si yéreem ya dañu xotteeku teg si rek yére ya dafa takk deret ñu yóbbu ko gendarmerie ba ba takk der yi wàccaale foofu ca bërëb ya ndaw si joxo ñaar ñooñu nga xam ne nee na guddi gu jot dañu koy gaañ Euh, kawteef moo am ca gën gi neew ñaari gune la génne ci benn bassin de rétention maane mi ngi am fukki at ak ñett euh, keneen kaa ngi sant ñang nee nañu nag benn kanaar la ñu doon jéem a jàppi faf lap euh, sapeur pompier bu gën gi neew ñoo génnee néew yi daal leen di yóbbu néegu nagandiku bu l'hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass lenn ci batiment administratif yu campus social université Alioune Diop bu Bambey amuñu ndox jamono ji ndax la ñu fayul facture seen eau yi ni administratif yu centre régional des œuvres universitaires sociales bu Bambey turam di Aliou Fall moo xamal sunu naataango yu APS ni SEN'EAU dafa coupé compteur bi doon doxal campus bi am na ba tey ñu fa amul ndox te loolu toll na ci ay semaine nee nañu it Ndiaye Diop ma ñu dénk relation publique yu SEN'EAU dëggal na coupure do bi ay millions yu bari la ñu wax ni rek moom la lee moom la ñu yoree la SEN'EAU lu bees juddu na ci mbirum noddukat bi di Basiru Ndiaye ma ñu faat ca village yu Jéyeen féete Pire ca Tiwaawoon Basiru askan wa fa yeewoo ñoo ko dóor ba mu ñàkk bakkanam la ko waral di jàkka jëmu bëggoon tabax ci weti daaram jooju mu di pee Al-Azhar bu nu sukkandikoo ci ay élément wu l'enquête gi imam ba Mor Mbay laale na ci mbir mi ndax nee ñu moo santaane ñu faat Basiru Ndiaye bu njëkk bi dafa gis ne waajaa ngi rek ci chantier bi moom ak yeneen i ouvrier looloo waraloon mu dellu woon ca ginnaaw bi mu gisee Basiru ak benn doomam bu góor dong ci biir mu tëral yëf yi benn témoin wax na ni rek imam bi da ko doon jéem a jam ba mu doon rawale Basiru Njaay teg si nee na rek moom imam bi moo ni woon nañu leen rey ñoom ñëpp laata explosion wu bu usine Star Industrie ga nga xam ne rek juróom-ñaari nit ñàkkoon nañu ci seen bakkan ba su ñeenti fan ci weeru sa Diourbel kawteef ca jam ñaajo fanweeri fan ci weeru septembre benn turbine usine de structure en acier service moo explosé ba ñaari nit ñàkk ca seen bakkan libération mi joxe xibaar wi di xam ne ni Ousseynou Ciss fanweeri at ak ñaar ma nga génnaat dina 7 octobre keneen ka Abdoulahad Diong moom itam fanweeri at ak ñaar ci ëllëg sa la faatu ñoom ñaar ñëpp di ay technicien de maintenance ba explosion ga amee la ñu ca jële woon ay lakk-lakk yu metti ñu évacué woon leen district sanitaire u Diamniadio u Diamniadio bi na ci enquête ngir xam rek la wundu explosion ga Mimi Touré jël na décision wu à proposition de loi bu di limiter exercice de fonction ak responsabilité yi ci institution de la République yi am rapport ak existence su lien familiaux na nag loolee dafay gën a renforcer dispositif promotion bonne gouvernance bi fi file ci Sénégal tey garantir règle yi Mimi dafa bëgg rek ñu takkale existence su de parenté yeeg njiitu réew mi Macky Sall mbokk